sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax di la ndokkeel di la sof ci nuyoo bi di nuyu sëriñ Ngunda mii nga xam ne moo fi tooy sëriñ Basiir Fall alxuraan di nuyu sëriñ Bas mii nga xam ne moom la defoon ndaw mu nekk ci suñu diggante ak moom ci te am ilaaxa bu rafet ni nga ko waxee di te mate ko lool di nuyu mbooleem bokk yi fi teew di jox Serigne Ngounde nuyoo bu mag mu joxal ko xalif général de Mouride xalif général de Baye Fall ak njabootu Cheikh Ibrahima gépp waaye di nuyu mboolem bokki taalibe yi fi teew kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di leer seere rek sëriñ bi boole moom yàlla moo koy def ànd nag ay jikko la sama diggante ak waajuram sëñ Bass sori na lool. moo tax ma faw faw danaa ñëw ba fii gis ko siyaare ko maanaam ñëw ci pàkk bi rek bu ma fi tegee sama tànk rek bu ma nit mënoon a bañ a gis sax da daanaka moo may gënal yaakaar naa ne waa kër gi xam nañ ci dara ah, màggal gi yàlla dafa dogal may ndaw bi may sanc sama kër gi ci xaayra ci sama ñaar fukki at benn laa ko sañc di gone gu ndaw ne ci wetam dugg adduna bi di liggéey maagal gi mu di ko defee Tiwaawan maa ngi seetlu 1986 la la daloo sama benn camion damaa jóge gi ne ñëw ñu ne suba la màggal gi te booba màggal gi oto bi laa daan jël jox ko ñu teg ci nag wi ak cin yi ak dongo yi départ dem Tiwaawan oto bi taxaw ñu fanaane si kër ba bët set buy xëyee mu indiwaat leen loolu loolu loolu loolu loolu yàgg yàlla dogal ma ma de may may ñëw nag xaw a tardé ci yoon wi toll muy jamono eh, jam am tardement bañ ne suba la màggal gi damaa ñëw heure bii ñu julli timis ma dem marché Ocass ci guddi gi ubbi sama magasin ñu déchargé oto bi ba jeex oto bi ngir huit mu mën a ñëw taxaw ci buntu këram ñu mën a teg bagage yi auto bi jotul raxas jotul chauffeur bi nan sama kër damay dem sama kër parce que boobu dañuy am fukki fan ak juróom ci ci voyage bi mu ne ma damay dem sa kër mané ko do mané dem sa kër da ngay dem tiawon ba sa bagage yi ba nappé do ra ñew lolu def nañ ko li arab di wax miraran ci gam gi motax mana bu bis bi ñewé manam faw ma ñew la tax ma lama sun borom dimbalee nak mu defon ma dom, ma def ko gis naa ci ba gis ci lu kawe sama njot bari na lool lool lool fum jaarak man bari na lool lool lool ma defal bari na lool lool lool lu taxaw ci kaaraanga ci waxtu ci wàllu gune loolu moo tax euh, ma jàpp ne ñoo bokk waajur wi te jàpp naa ne ëppale wuñ ma ci ndax Euh, loolu nit moom euh, nit dana toll ci tolluwaay boo xam ne boo àndeek ku ko dolli te aar ko dana ko xam te lool defal defal sëñ Bass Fall alxuraan defar na ma ko loo euh, am na lu baree bari lu ci dolliku loo xam ne du du du du waxee rajo du waxee mbooloo waaye ma di leen xamal ne daal ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di ñaanal waajur yuñ bokk yàlla na yàlla dolli leeram di la xamal ne daal say sa mbokk sa mbokk sa taalibe sa doomi baay ngi ci yow boo xam ne lépp lum yëg lam ca man dana ko def ngir yàlla ak yenente bi ak suñu wàjjur wu baax woowu ñu di ko ñaanal yàlla ne dolli leeram ndax yaakaar naa ne fam ne yaakaar naa ne ndaje moom ndaje ndaje moom ne yaa yaakaar naa ne dene li ni bis bi wane na ko danañ ko ca ràññi da ay maqaamam moom du ñuy xeeb ñuy waxtaane te boo gisee lii lam déparé ak ni mu taxawoon ak bis bi ni mu mel ak kër gi nii mu mel defe naa ne ku xam démb te xamoon ko tey xalaat war a xam ne liggéey bu suñ borom nangu la ndax ku nekkaloon suñ borom la tur wi rek firndeel na ko Serigne Bass Fall alxuraanul karim moom de lii ma ko dégg bariwut ku ñuy dàkkantal ci alxuraan waxane buñ bëggé boy pour ñu xam ko rek da ngay tuddu alcorane ku ko tuddu tuddu alcorane ah loolu yaakaar naa ne ndimbalal suñu borom wu kaw yalla nañu yalla taas ci barkem yalla na la yalla may fanu gudd ak ak wër ba yéeneem jim amon ci l'islam ak ci yoonu Cheikh ibrahim kat Cheikh ibrahim ak ci yoonu seen bi lepp nga àggale ko ba softi sa yefi bop di nuyu di la nuyu bu baax sëñ bi di la joxam siyaare bu jëm ci bi sama sa digënté ak mom mom def na né li sëñ Abdou waxon ko ami bët jarut wax ni la ak na ndax digënté sëñ Abo ak serigne Sidi ku xam dara ci yoon yu xam nga ko ku xamul nak jarul wax ma nga né ndax boko ko du ko xam ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di siyaare bu baax di siyaare bi di nuyu mbolum talibi fi nek nak di nuyu président Abdou Lahad ak sëñ El Hadj mi mu andal nga xamni bi ñu waajal bis bi. Ah, loolu ñoo anticiper loolu la def anticiper ah, ndax euh, bi ma waree am CRDD euh, ak ak préfet ah, teewul moom comme am naa ci mu ëpp cër moom dama ko woo téléphone ne wax ko ni comme ñu ngi waajal bis bi am na euh, lu ciy teewoo bi ma ko waxee loolu mu mu tàmbali liggéeyam nga ne moom ba muy tàmbali liggéeyam ñu bari sax xamuñu ne oto yi moo leen fi yebal ndax boo wàccee magal gi ñëwagul. ba ba yàlla dogalee préfet war a convoqué ni mu koo ma man ko président Abdoulaye moom la moom la ma ko wax moom ma nga ja xam naa kon daanaka jataay bi jërul jërul ndawam dafi ne kon loolu damay jàpp ne euh, jox na bis it jox na euh, bis bi li mu wax euh, suñu waajur yi muy sëñ Fass alxuraan ñoom ñaar moom man damaa xàmmi ko xam leen wax dëgg yàlla ndax moom mi waajuram waajuram mu jigéen am na lu mu seqoon ak sëñ bi ci lu bari loo xam ne daanaa ko daanaa daanaa ci sama bët di ko gis euh, li mu wax ci euh, Tivaouane ci camion bi ñu daan naal ab CCNT la woon CCNT xam nga waaye moom la woon yaakaar naa sax daana boole di ko àll ay type ay type ko kon loolu muy yàgg sëñ Bass moom waajuram la dëkkandoom la euh, damay jàpp ne sëriñ bi bis bi ni muy taxaw taxawoo bis bi seen blaat ki mi noonu la ko war a taxawoo ndax dëkkandoo sëriñ bi la sëñ bi def na ko doom yàlla yàlla dogal naat man mi nga xam ne man la sëñ bi daal doxal diggante ak moom su musaanam damay jógee kër sëñ ñëw doog toog këram ñu waxtaan ñu tënk li ñuy tënk tey jii bi sama kër nekkee fii bi ma ko woowee téléphone ñii doo gise ma ak moom la ma ko wax def na ca kéem taay eh, yàlla nag moo mën a matale waaw yàlla moo mën a matale eh, ba am na sax benn lu mu waroo def loo xam ne man maa wax eh, man maa ko maa ko wàccee muy affaire éclairage public maa moom xam naa am na lu fi newoon te leer na kon loolu dama la koy jéggal ndax it xaw naa laa yërëm ci nga yebal fi nit mu am lu mu def. sa bis si di te te nañ war a def xam naa leen moom moo moo xulal woyofal ko waaye la nga xam ne wax naa ko tam man ko war yàlla def na ko te it ma ko woowee téléphone ko jot ñu tënk li ñu war a tënk kon loolu sëñ Blaat maa ngi la ciy sant di ko seereel sëñ bi te te ku la gis sama dem si Cheikh Blaat sama dem sëñ si kon damay jàpp ne loolu ab cër la ndax maanaam koo xam ne buñ la xoolee rek sama xel dem sët sëñ Tuubaa sama xel si di ak ni mu toll ci yoon yi maanaam loolu cër la boo xam ni moom moom doy na sëkk ab cër kon dañuy jàpp ne yow euh, kilifa nga yàllaa ko dogal euh, sëñ bee la doy loo ndax Touba li muy réeré sëñ bee tànnal boppam te Touba moom dëkkum ndigal la sëñ bee sëñ bee la joxoñ daan kii moo ma doy kon euh, te te sëriñ bi ñun li xam xamuñu ko li ñu gis gisuñu ko kon ñun ndigalu sëñ bi lay jàppe bëti sëñ bi lañ lay jàppe maam bu fi ne wuute wuñu sëñ si di toogoon fii tey ndax ku la dem ci moom kon loolu doy na sëkk cër kon dañ lay ñaanal sa borom defal la tawféex te guddal saw fan sëñ bi yaakaar ji mu am ci yow sa borom bañ caa tas dara li yow li nga naal te bëggoo bëggoo liggéeyal sëriñ bi sa borom may la kàttan goo ko defal te defal la xéwal defal la man li may wax lamb ruum ndax ñoo dëkk daanaka ko ko kon xam naa la sa rek xam naa bu yàgg waaw kon nag euh, comme dëkk bi dañ ci liggéeyal sëriñ bi waaye sàkku teraanga taxul nga loolu mën naa ko waat waaw kon nag loolu lu mat sant yàlla la waaw kon daal ñu ngi lay sant di la gërëm te xam ne njaboot gi sa njaboot moom ndax yàllaa la si dub cër cër bi dañ la koy nangu ñu ngi lay sant di la gërëm sëriñ bi mi ngi lay sant di la seereel ci tey ak démb ndax ndax tey rek bi am na yenn yu jàlloon sëñ bi sant na démb sant tey ñu ngi koy seereel mbooloo yëpp ñu ngi sant baax di nuy ñëpp di nuyu seen El Hadj Ndiaye moom di ko siyaare baax a baax di nuyu seen Dafa Raaf mel di sàkku ci moom ñaan